wa baxdu maa ngi dellu sant yàlla ak cant gu ànd ak jooy xol asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ñun dañu seetaan ñu fas yéene ànd ak yéen rek ci lenn ci dund ak jaar-jaar yi Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul mi nga xam ne eh, waajuram bu baax di soxna Fatima du Maam moo ko seq ak Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul mu feeñ jamono ci atum 1895 bi Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul rañaane ngir liggéey di borom bi subhaanahu wa taala feeña nag fan ci Galiyel ci dëkku maamam boobu nga xam ne moo di sëriñ Madu Maam Jóob ñu meññ soxna Fati Madu Maam sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul itam batale woon ko wax ko ne ko maa ngi liggéey li borom bi subhaanahu wa taala waaye gan googu bu feeñee bu dee góor na tudd Mouhamadul Bachir bu dee jigéen na tudd Khadija mi ngi feeñ nag fukki fan ak ñaar ci weeru koor maam weeru maamu koor e, ca dëkk boobee Cheikh Mouhamadul Bachir itam yàlla dogal na sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mooy ki nga xam ne moo saytu mbiram yëpp moom nag la ñu fas yéene ànd ak yéen ci ay ay témoignages yoo xamante ni bii lenn ci njaboot gi mu yar def na ko ak ay réalisation yoo xam ne def na ko ci àdduna diggante Cheikh Mamadou Bachir ak euh, jaamu yàlla diggante Cheikh Mamadou Bachir ak yar diggante Cheikh Mamadou Bachir ak xam-xam waaye diggante Cheikh Mamadou Bachir ak relation bu rafet bu mu seqoon ak njabootu Serigne Touba gi ngeen di ci ànd nag ak suñu caméraman Serigne Mbacké Dieng waaye ñu def ko nag ci ndigalul Serigne Hamsatou Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo ko moo am bis tudde ko Cheikh Mamadou Bachir te mënee ànd ak yéen kon ñu ànd ak suñu bi. tarbiya man maanaam euh, ni nga xam ne ni ko waxee fi nga xam ne fi la ñu ma jaarale man nekkoon naa ca daara ja am nay jamono yitam bu liggéeyu daara ja wàññeekoo sëriñ bi daf may jël si ma ñëwaat ci kër gi ba cooroon ba cooroon si gamb mu ni ma ñëwal dellu ca tool ya waaye nag da daan def ni bu mu demee ba liggéey jot mu ni ma ñëwal dellu ca tool ya ndax nangam bu ma demee ba liggéey ba wàññiku ñu delloo si waat ma ci kër gi ba jëmmi jamono ñu jëlee ma ca daara ja indi ma féete ci kër gi féete ci benn yoon euh, diggante boobu nag maanaam wàllu yarin wi tarbiye gi ak mooy yarin mooy yar tarbiye gi mooy yar li ma la waxoon ci bi nu tàmbaleegul ni la yarin wi danañ ci dem ndax bi ma ñëwee nekk ci kër gi fekk naa fa ay gone yoo xam ne yi kane woon ci kër ga moo leen yoroom am ci ñu mu jubóolul ba génn leen teg fee nga xam ne du leen tudd du leen yoon yónni du leen taas te ay doomi kilifa nga ca ñoo ñu may wax bu ñu ko déggee danañu xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom la woon ndax ñu ngi fi ba tey léegi ba ma sëriñ bi joxee ñooña dafa ni ma daf maa woo ma ñëw toog mu ni ma ay gone boo leen yoree fekk ka nga xam ni kii jubalut tax nga génne ko teg fële ñi ca des mën nañ koo toppatoo toppandoo ngir bëgg a jot ci seen bopp dana tax ñu mën a dugg ci leneen ngir bëgg a jot ci seen bopp ba ndax seen moroom mais jot seen bopp ay gone da nga leen di yemale ñoom ñëpp fas yéene ñëpp nga jubbanti leen ba ñu jub ni nag ay gone boo leen yoree di leen yar da ngay waxtaan ak ñoom ca la mat a def ak la mat a wattandiku fekk meroo meruñu ndax nee na soo meree loo waxit ñu ne daa mer rek ñoom it ku ci mer loo ko wax dootu koo dégg ndax fekk na mu mer kon nag da ngay waxanteeg ñoom li nga bëgg ak li nga bañ fekk meroo meruñu ni ma waxuma la nga ñàkk fayda ba ñu yeb la nag liggéey jàng daal lu mu ñore Ah, ku boo boo xamante ne wàcc nga daal moom amatoo lenn looy def lu may nekk ci kër di jàng ah, daanoonu dimbali itam nawet moom ah, daanoonu wutal njël loo xam ne duñ leen renteel moom moom moom daanoonu sarax moom njël loo xam ne moom boo xamante ne asamaan sëdd na ba ba nawet bi jeex am reer waaw danañ na bu njëkkee ba yor yor na dana ñëw seet jënd daal mu toog fa diir comme soxla si daal si wóolu la jël wóolu jël mu fekk ko fa amee lu mu ko wax mu wax ko su fekkee soxla mu toog fa ba mu amee dem moo ñu ko dellu léeg-léeg itam mu wër daara yi daara ji ne mu dem taxaw fa kon ni jëriñ mu nuyu ko moom la wax moom la wax laaj ko nu ngeen defee fu ngeen toll ak moom wax moom la ñuy wax jàll yooyu moom daana ko def daana ko def moom bis bu ne moom danañu nemm ko si moom ba xam daal ci lu nekk ak moom dawuñu bàyyi nag bis wala seet moom danañu seet si boo xamante ne wër wëru daal yëpp dina mu taxaw fa korne jëriñ ji fekk ko fa mu nuyu ko laaj ko nu ngeen def mu ne ko nangam nangam nangam bu amee lu mu ko wax mu wax ko bu amul mu jàll léeg-léeg mu ñëw leen ci jenn daara ah, daara jëriñ ju mag ja wala jeneen daara joo xam ne ci daal daanaka ci digg daara yi la ne wala du ko sori eh, eh, toog fa ab diir rek eh, dem wañu ko dellu waaye nag bis boo xam ne bi xëy na bésu dem seet si wu néew ko moom dana néew dama koy def jamono dongam yëpp maa ngi seen jiit daara yëpp yëpp hmm. ba ni ma jógee si daara yi ak jamono xam nga ko ndax boo woon si woon waaye la mu daa digal day bokkoon na ci jub ak jaamu yàlla daanaka wax na itam Sëñ Tuubaa kenn la du ñaar fu ngeen fekk kenn ci njabootam nit moom fenn la mën a féete fu ngeen fekk njabootu Sëñ Tuubaa jox leen ko ciram ba mat daana def it dikkee ci daara ja daa wétti dongo yi ndax loolu yi kii wax da daa ñëw ci tool yi di bu daa bu demee ci daa toppas la jógee dem la bu ngi di daa teeral naa leen waaye daana ma jox ay gileem ak nag ak xaalis te ab yi ñu di ko rey waaw benn bis mu ni ma léegi damaa bëgg nga tànn ci juróom-ñaar yoo xam ne yaakaar nga ne da nga déggoo ñoom nga téye leen ñi ci des dama leen di yóbbu ca tool ma ñëw toog mu ne ma tànnal ma tànn ni diw mu ne waaw ba muy juróom-ñaar mu tàmbalee ci ki ma jëkkoon a tàmbalee ni ma kooku loo nemmi ko su ay jikkoom ba tax nga nga tànn ko ma wax ba agal mu tek ca ka ca des ba juróom ñaari mat mu ma ñooñ yi nga ñooñ yi nga tan ñooñu la soxla ca tole yi ñooñu laa yóbbu ca tool ñeneen ñi ci dess fexel ba bala ma leen soxla ñu mel ni ñii daana defit bu lolé ñu ka yónnee Casamance jëndal ko fa kërisa ay dante yu mag yooyu ba la xew ñu ko séddale dong yi bu jeexee ñu demaat jëliyaat ko ca mangi seen Sëriñ Saar karité gi karité gi. di ko def ci laax bi. waaw waaw. Mhm. bu cooroonee. ñu yónnee bëri koy tiir. ndax nee na bu cooroonee ba mu tàng tiir a gën ci nit. loolee ba mu sedd karité gën ci nit. <laughs> yarinam ni ma la ko waxee léegi kenn ku ne dana la ñemeeloo boppam ba fa nga war a yem lu tee nag wegu gi ngay am sa digganteeg moom moom maanaam bàyyi gi mu la bàyyeeg boppam du ca feeñ ndax fa nga war a yem fa nga yem fa ca des bala nga faa yegg ci dana taxaw dana taxaw loo moo tax ay yarinam wuuteeg yarini ñu bari. yaatal doon na ci bopp ba nga xam ne gone gone gu toll nii dana ko may yitte euh, ñemeloo ko boppam ba nga xam ne dana mën a ñëw ba jekk ci moom wax ko lu mu ko bëggoon waaw loolu moom mayoon loolu na ko bu ñu wax bay bi ma yeewi ko dafa dem sëñ bi ne ko daal dama bëgg a dem ci Baye Abdou moom laa mën a nekkal ci waaw waaw boobu moom xale bu ndaw la boobu maa ngi koy ne ko daal da ngay dem te jéem a góorgóorlu fexe ba def na moom la xam nga boobu bu fekkoon ne da ma ko daan fitnaal kon kon si wataagu ma ne waaye du ma fa jóge ma dina doxal sëñ yaatu googu itam yar nañu ba nga xam moom kenn ku ci ne nga yoroon itam nag dawoo bi jóg ñoom wala dëgg na ñëpp dañ nga yéene si nga yéene woon si moom fekkee da ngaa bàyyi wayu te yoo xam ne amuñ ki leen ñaan la lu wutal soxna yabal la nga dem yor leen su loolu amul wutal la soxna teg la fi gërëb boo dee doomi soxna maa doomi kilifa mu seet fa say bokk féete mu sañcal la fa defal la fa kër jox fa baat nit ñi ànd ak yow nga daal doon kilifa. waaye du la bàyyi sa loxoy kese. déedéet mukk. am na ku ñuy wax Moustapha Fall. ma ne Baba Fall amoon ca dëkk bu ñuy wax xuma duuf xuma. waaye nijaayam daa nekkoon sagat feet mu ko Mballa Fall. donc yow it rek a fa yebal. te Moustapha xaw caa yebu. da ko wax ne ko Moustapha demal rek. du ma la bàyyi ak sa bopp. du la bàyyi say bok ñu ne ci tawat ji ñëw naa ci moom am lu ma koy wax rek bañ dem waaw yàlla mën naa defar lépp ndax du te bi du xanaa ne xanaa ne xam-xam lu war la te ñàkk waaye boo ko nee na ko tërbiya day mel ne tërbiya gën a war la te ko nee na tërbiya mel ne tërbiya gën a woom. ñii nekk moom di tërbiyewu ku ko ci tàggooti ngir ni ko dama bëgg a dem yori samay jur dana la bàyyi nga dem roy way euh, roy yori say way jur ndax nee na loolu farata la ndax nee na yor say way jur farata la te ci wareef yi la bokk dëgg la te dëgg neexut ku ko xam ne wax nga ko boo ko bàyyee danaa ko bàyyi mu dem ca waaye nag moom la muy fa la la muy wàccee nit ndax am naa menn na mbokkum taalibe moo xam ne ak njabootam a ngi fi moom bàyyi ko ne waaye ay njabootam a ngi fi dama leen ni ñoom ku war a fonk ja ñu war a fonk jaalibatul maraaxib lañu ndax jaalibatul maraaxiba wàccee seen bàyyi ca daara hmm. waaw loola mooy waxtu wu maanaam am na lu mat ñetti weer yoo xam ni bis buñ bu ne bu ñu jullee timis ba noppi mbaa ñu julli gee ba noppi dana ñëw wéeru ci kii bi taril sëriñ bi jaalibatul maraaxib ba mu jeex mu dem ca daara ja ñibbi diir bu gàtt la ko def ñu weeku mu ñib mu ñu woo ko yeewi ko loolu dama koo fekkee fekke fekkee naa ko kooku ak njabootam fi buñ ko déggee danañu xam ne seen bàyyi laay wax ndax waxtaanoon naa ci ak ñoom kooku kon waaye nag daawul jékki-jékki wàcce nit ndax am na ñoo xam ne yàgg nañ ci daara ji am na ñoo xam ne ñi man fa laa leen fekkoon ña nga fa ba tey ba ñu jógee ca daara ji fa la des am na ñoo xam ne ñi fekk nañ ma fa dem bàyyi ma fa am na ñoo xam ne fekk naa leen fa dem bàyyi leen kon na muy yeewee ni teg yooyu ku ko bàyyeeg sa bopp daal baatin da lay xool di la ci yeewi la ci wax ah, ngeen xam lu ñuy def rek la ak teer lu ñuy bàyyi la koo koy digle la koy jëf wax dëgg. jëli bi lépp ba naase mel ne ab gent kenn xamatul soxlaam ca booba jant murid la mbaa xaadir la mbaa tijaan la ñëpp a ngi jooy ngir yàlla mbaa ngir la ca yàlla laa ilaaha illallaah jëf bokk yi nga xam ne ñoo ngi ñi topp ci documentaire bu euh, Cheikh Mouhamadou Nil Bachir ibn Cheikhuna Ahmadul Khadim ñu wéy ànd ak yéen rek ci li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Bachir sanc ci ay dëkk ci ak njàmbaaram ak ak farloom euh, ci teewaayu Serigne Touba ak ginnaaw teewaayu Serigne Touba dëkk bi ñu nekk moo di Tiib Diop Mbacke di dëkk bi nga xam ne ku ne xam na ne Cheikh Mamadou Bassir na ko lu ëpp ci njabootu Serigne Touba gi lépp fekk nañ ko fi mu nekk dëkk bi nga xam ne yàgg na fi lool fi la ñu nekk tey fas yéene taatan ay kaddu ci kenn koo xamante ne bii way juróom ak Cheikh Mamadou Bachir ñoo àndoon waaye moom ak Cheikh Mamadou Bachir it ñoo ànd ànd ak Cheikh Mamadou Moustapha ba ci Cheikh Mamadou Mountakha kooku di Serigne Cheikh Dia moom lañ fas yéene dëkk bi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Bassir sanc ci man at la ko sanc ak kan mooy Cheikh Mamadou Bassir ci wàllu sanc ay dëkk rawatina ci wetu Saloum tiim nag bokk yi xam ngeen ne mi ngi ci yoonu euh, Kaffrine boo jógee Touba jaar Mbacké jaar dëkk bi nga xamante ne bii moo di Kayal ci ngay ñëw tiib mu dend ak dëkk bi nga xam ne moom la sanc ngeen di jàkkaarloo ak moom muy nasrun minallahi te doomam ju baax ji nekkoon fa di Serigne Abdoul Hakim ngeen gis ne àll la boo xam ne lu ëpp 5 kilomètres jàpp 6 kilomètres yoo xam ne jamonoy tubaab yi la ko sëriñ Basiru goroon ay def fi ay forage ngeen jàkkaarloog forage yi noonu loolu lépp di tegtale njàmbaaru Cheikh Mamadou Bassir kon ñu ànd ak sëriñ seex Dia mu xamal ñu kan mooy Cheikh Mamadou Bassir ci wàllu sanc ay dëkk ak liggéey yabal eh, dëkk boo xëye nii dëkkab sëriñ Bassirou la boo xëye ne mi ko sanc ci ndigalal sëriñ Touba ci teewaay sëriñ Serigne moom ci jëmam mi ngi ko tudde tay bu naf si moom da tudde dëkk bi booba nag li tax ñu di boole nag Darou Salaam bi muy sañc dëkk bi daa fekk mu sañc dëkk bu ñuy wax Darou Salaam ci booba Darou Salaam teg tiib di ay gor nga xam ne village bi ñu fayee lempo dafa bokk ak Darou tax ñu naan Darou Salaam tiib loolu moo indi Darou Salaam tiib ji waaye moom ci jëmam tay bu naf si la bind la tudde dëkk bi mais dëkk bi nag moom Serigne Bassirou mi ngi ko sanc ci euh, année bu ñuy wax 1925 ci teewaay ak Serigne Touba bi mu ko sancee itam Serigne Touba liimaay gi nga xam ne moom lañ def ci dëkk bi moom la sancee dëkk bi Serigne Touba moo ko joxal boppam. loolu daal mooy njëlbeen gi nga xëy nii moom noonu la sancee tiib bi ko sancee itam nag ah mag ñi nga nii ñoom la àndaloon di liggéey ngir yàlla. ah ñoom la fi daal di dë dëkkal. te liggéey bi moom ah, boo xamante ne mos nañoo béy ba sonn boo rombee boo mooy rombee jël yi da ngay defe ne ay ay coopérative la waaye ko duñ ko béy nga weddi ci gerte waaw ci gerte. ndax koo xam ne mos ngaa yem ci ñaar téeméeri bërigo képp dañ lay reetaan naan la yaa sàngam mbay mi yaa ci daara yi waaw nga yem dañ lay reetaan ne moo ci gën a néew gerte waaye moom faaw nga romb ko jëm ko waaye léegi moom. te booba daara yi daan nañ bëri. ah waaw daara yi daan nañ bëri ah ñaar dana ko dana bay bay ci boppam jamono ya muy nekk di bay te ñëpp ràññee ni maanaam euh, tubaab yi xam ko sëriñ si xam ko li mu daan li mu daan ñoral ci mbay genn kilifa daw ko fi ñoral te booba jumtuwaay yi melul ni mel. waaye mboolem kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci booba ay temps colonial si la woon waaye teewul tubaab yi xam nañu am na benn photom boo xam ne bii njaareem rajo ba ca nekk rajo ba génn ca photo ba tubaab bu ñuy wax Orliac nga xam ne moo fi moo moo yore woon coopérative yi nekk ci réew mi yëpp Orliac maanaam ëpp gerte ci réew mi moo taxoon mu jox ko kado yañ ko joxoon rajo booba ca la bokk rajo bi mu ngi ci photo yi mu photo waaw kon nga Euh, ku ràññiku woon la ci wàllu liggéey booba nag liggéey bi ni mu demee fii xam nga liggéey naka jekk fii booba euh, barab la boo xëy nii booba eh, bay eh, rek ak góor booba jafe na jafe naa nekk lool ndax booba njëfandikaay yi bari melutoon nii ndox itam booba yombu fi ba booba moo tax waaye bi ñu bisaatee nag ba defaraat dëkk bi nag léegi lépp daal di jàpp ni ndox meeg tool yëpp waaye moom naka jekk moom mi ko sañcee moom la moom musta del musu cee dellu ginnaaw ci li nekk fi di liggéeyal sëñ eh, moo fi def ndox wala sëñ Moustapha moo fi def ndox lépp ndox mi nga xaye nii moo fi ne nga xaye nii mooy ndoxam travaux bi ah, ci moom yëpp ci teew ak sëñ Bassirou la ci bëri waaw waaye nag waaye nag yëg si eh, moom teew ak bi nga xam ne moo indi ndox moom oh, natt na natt nañ ko ba ko ba pare moom tarawoo bi ñuy wax boggal doole moom benn na bay xelli natt nañ ko it ba indi bi ci dëkk bi waaye nag xelli dëkk bi gi moom jógee ci tarawoo ba ñëw ci dëkk bi moom fekk ko fi moom waaye nag waaye nag natt moom fi la ko fekk man mii la boolee gan ña ko doon natt si eh, dalal dalal sama kër boole ma ak ñoom maa ànd ñoom bañ natt teew bi ba noppi noor boobee nag ba mu demee màggali Tuubaa del si waatul. Eh? sëñ Saalum mun soxna Musli ak sëñ Daraman hmm? ni sëñ bi ko woo bis sëñ Basir ne ko Moustapha dama bëgg sama kër gee Daaru Salaam kayal yaa ma sañ ci kayal ma jox la ko nga def na sa baay defoon ndax sa baay sëñ bi ko woo. jox ko daara alimul khabir sëñ bi seen kërëm boogee jox ko mu nekk fa di jàngale alxuraan di jubbante ba ba yàlla moom ko lu bëgg laa yóbbu sama gi Daaru Salaam Kayel hmm? Daaru Salaam Kayel nga ne fa def na sa baay defoon sëñ Moussa loolu koo xam maa nga mel ko xam ni moom ko ko ko ko kii la ma ngi ca barsax rahimahullah rahmatullah sax ñaana sëñ Moussa loolu ma ne ko ah waaye kii yi ka dañoo wóote ñu sëñ bi ne ko loolu wóote la mu ne ko da nga ne Daaru Alimul Xabiir ni Daaru Salaam man kay naa fa nekk naa fa nekk jàmm waaw sëñ ko waaye kooku di su ko dem naa ni sëñ bi ni ko sëñ bi wàcc na sëñ ci ne am na Daaru Daaru Alimul Xabiir jox ko sobaay nekk di jàngale di xam ne diine di xam mool xet xam nañ ko xam ba ba ba ba hmm? hmm? bi wàcc na sobaay wàcc na may am naa sama sañ ci biir Daaru Salaam ma jox la ko rafaatal la ko ba nga nekk fa na sa nekk nekk baay léegi sa baay sëñ bi wàcc na sa baay wàcc na wàcc naa yow yaa ci des eh, digganteem ak kilifa itam maanaa loolee ñun nga dégg ñuy nettali naan sëñ Fallou naan sama rakk ji yokk million man takk naa lu mat lu mu néew néew yett yoon yoo xam ne benn ñu am may wàññi million man waaw téye ko ba nu ñëw fi sëñ Fallou ba mu ne ma ana loola ma jox ko mun jox ko sëñ Fallou sama kan loolu man fekkee naa ko lu gàtt gàtt mat na ñetti yoon waaw kon nga xam ne maanaam cër bi mu joxoon euh, ay magamit euh, taxawoon na maanaam te eh, digganteem mag yu bari ca euh, la jiitu loolu itam bari na ci lu bare bari yoo xam ne dañ ko dul wax waaye am na luñ ci déggee ci luñ la ni rek nangam ci diggante sëñ Touba ak yooyu ci moom lañ ko déggee. kon mel na am na relation kon bu yaatu diggam ak famille sëñ Touba. waaw kenn ku ci ne. kenn ku ci nekk am naa yow sa relation bopp xam nga moom bu dul doomi sëñ Touba yi sax ñi mu bokkal sëriñ Touba bu dul ñoom itam ku mu xam ku ko meen ku ne. jox na la ci boppam wàccuwaay boo xam ne da ngay jàpp ne dala koo beral yow dong yaa am wàccuwaay boobu ci moom fekk dafa daj ku mel sëñ Basiru xam nga lii ma wax. fii euh, Cheikh Abdou mi ñuy wax sëñ Abdou Borom Géej moom dafay féete woon ak moom moom moom fii la nekkoon fii la ay dongam nekkoon fii la doon liggéeyee ba euh, ab taawam sax fii la jàngi alxuraan ba fii la wàccee doon wàcce liggéey. ah ñi ko fi daa fekk fii itam moom fii ñu bari fekk si na ko fi sëñ Fallou fekk si na ko fii ba am na bis boo xam ne sëñ Fallou daa jógee Poroxaan waxtu tisbaar la fi jaar fekk na booba sax ñu toll ci euh, war a xéewlu bay noppi ba njëg see sëñ bi si toppatoo leen ba sëñ Fallou demee nag euh, kër ba muy dem la ko jox nga nag euh, danaa fi di sifaat ba mu demee ba ami fan nag la doog a desiwaat fi genewaat ko fi ak ngan goo xam ko fi genal boppam waaw sëñ ko wax naa wax naa wenn bi nee naa la naar bi def ne xawam ka ahlu zayqi suma hadaytuhum ndax wa tuqaa wa taquuduhum wa tasuudu hmm? ñu jàngoon ci yoon ñëpp jubanti nga leen hmm? ñu jàngal ci yoon ñëpp bu nga leen jëmi ci ragal yàlla ma takk ni la sëriñ bi lim gën a métti nga xam nu bewen ku war a tekki ci tekki woo ci tekki woo waaw ci yoon foofu foofu nekk nag am na ñoo xam bu ñu déggee li may wax daañu ko xam moom daañu xam li may wax moom. kooku war moom kooku moom du ko sagoom def alalam dana def xelam dana def lu dana lañ ko tuddee woon ndax mboolem këri diine yi islam moom jenn la fu lu mos a xew mooy dem fa leen ba ñoom ñëpp ñu nekk benn moolu ba tuko benn sax mbokkam yi mbokk suñ tuwaa ñepp ay sëriñ leen wax waxtu mo sa dégg ñu moo mo xamni mi ku ko jégé la ben muy ci njaboot sëriñ ba lu mu doon mu dem ba adina jot jot jot jot ko am lu ko nar a gàllankoor ci wétu adina ci ci ay bor ak yoyu la kay fay ngir ma di ko waxatul mm-hmm. waaye man fii njëriñ yow ma xarit bu bari Ya, yang buat nama anda ak Ablaye Niang ku ñu wax Ablaye Niang moo doon secrétaire am dem tribunal diw dégg naa dañuy bëgg a taf këram ngeen wax président ne ko ñu seet compte boogee dugal ci ko ko ci oh. la ca des mu dund ko ci biir koora def ko ci sama pour koy fay te kooku xanaa ku gën a jege suñ tubaab mag koo tax. kooku boppam gi it lam leen daa dénk sëriñ bi rek. sëriñ Tuubaa rek. rek am benn benn mu leen dénk lu sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa mi fi ne tey fekk ma ko maa ma ko nettali yadda kuma masu ogun mu ne ko dama leen bëgg xamal fi ma ne yéen ñëpp daal baal naa leen yéen ñëpp toppatuma ci kenn benn tomb ni ci waaye def nag sa bopp yaa xam suñu taxaanee ma ne ko man de am naa ay bëgg-bëgg yi ma bëgg lool am naa lu may bañ tam waaye lépp jaayante naa ko bis na ko tey. bañatu ko bëgg. li ma sànq bëgg génn rek la ni nga bëgg mu mel nii rek mu mel nii. na naa wax ca ci cib da ngeen góorgóorlu naan naa ko sëñ Bassirou ko am na lu ma wax man na ma am na lum ma sëriñ Tuubaa wax ci yoonam bii loolu naa la ko yooyu itam nga ma ko téye ba mu xaat bu mu fi li feeg maa ngi sa kilifte so ma la ko ci man soo mën a pay ku fi nekkal sëñ bi dama ànd ak moom daana waxe ne da ngeen góorlu ci góorgóor seen liggéey te di ko sellal da ngeen góorgóorlu ci mat du mat du mat da ngeen góorlu ci pa góorgóorlu ci pastéef ndax pastéef mooy dimbali kuy liggéey Dah ndigal daa yana kena na kenn attunu ko waaye bu sa pas yu matee day tiim waaye doo laal sëñ Mamadou Touré wax naa noonu nañu li mu leen di message rek ci mandarga dem Tambacounda fekk fa ak mango mu meññi ba ami dom nga dagg ko macc doom ba ñëw tiib jëmbat ji ba nee ba ba nga toppatoo garab ga ba mu ñor boo ko màccee lu muy saf mu ne ka xanaa mango lay safaat mu ne boobu mun xam nga ne mango ba nga jiyewoon Tamba day macc ko ci yoo xamante mango waaw mu a misaal mooy koo xam ne da nga daan bu ma fi ne Cheikh Mamadou Bassirou mii la ma mooy loola moom daa bëgg mu bañ leen dal bu leen naan bu leen bokk ci ñu naan dama bu ma fi fekkoon sëñ Tuubaa sax la mango ba safoon moom la sot kon nag ngeen xam ne ku daan bu ma fekkoon sëñ Tuubaa def nangam boo loolee loolu it sëñ ma Touré moom daanaka sëñ bi boole woon na ci mbiram sëñ bi ak yooyu. daanaka ne it man mii def suñu ay yéene mbirum teraanga moom sëñ Tuubaa sall yow mooy xeexam su ma ko koy delloo benn gàkk boo xam ne bëgg-bëgg ba tax mu ne ci bëccëg. ఓకే అండి dëppal waxaane bëgg-bëgg bu àddina nam ca tool mën naa koo man te féete ci yàlla war def ci mani bu ko lim ardo ñëpp ngi jooy lépp ngi jooy foo tollu ndegu murid yi ko jooy di baslu jumaa Jurbel di ko jooy kaamil ba mag ñi ko yoroon ñëpp a kamal ba tey ba ngi jooy sunu waaji góoru Mbàkke ku nekk a jaaxle jooju waaye moo tekki su fi juróomi yaar waaye ci biir Daaru Salaam Kayel mbokk yi xam ngeen dañuy jàkkaarloo ak genn garab goo xam ne mooy garabu mbépp bépp ci la laalo yi mbépp daan bàyyi ko garab gii ñu baree bari ci lañ daan wute laalo boo ko masaan gaj ji njooy ndooy bu génnee mooy nekk laalo yi mbépp waaye nag buñ tuddee bépp ci yoonu murit taarix lay indi bépp gi mooy doomi bépp ga nekkoon ca fa sëñ Touba tëdd bépp ga nekkoon ca jumaay Touba ja benn taalibe Cheikh Mahamadul Bachir bu ñu wax sëriñ Modou Mbaye Xandi nga xam ne moo daan rootal Cheikh Mahamadul Bachir moom moo jële woon benn doom ca mbépp bépp googee ca jumaa ja ñëw jikko fii ci Kaay ndax mooy dëkk bi sëñ sëñ Basiru njëkk a sanc ci nekkuk sëñ Tuubaa booba bépp gaa nga ci jumaa ji booba sëñ Tuubaa ñëwagut ci jumaa ji fa la jëlee doom ba ñëw jikko fii di ko sooxatal boppam nag ndax moo daan rootal sëñ Basiru bi mu nekkee fii di ko suuxat ba bépp ki màgg mu ñaanoon nit boromam ne sama bépp gi maa ngi ñaan ngeen sàmmale ma ko waaye ku ca dagg ab bant wala nga ciy wut saafara loo ca saafara yàlla bu saafara saafarawu ndax bépp gi nekk taarix kon mën nañ ne béppug jumaa ja doomam a ngi nii mooy mooy ab taawam doomam a ngi nii di ñaareel ko di bépp gi nekk ci Daaru Salaam Kayal muy barabu ziar boo xamante ne bii man ko waxee ñu ngi ziar baax sëriñ Cheikh Abdou Lo ziar sëriñ Mountakha borom daara ji sëriñ Mountakha Lo ak sëriñ Bassirou Lo di njabootu sëriñ Moustapha Lo di jarbaatu Cheikh Mamadou Bassir boobu di ndaw mi sëriñ daal Abdourahmane Lo ñoo ngi ñaan suñu borom fayal ñu ko ca àjjanay jannatul firdawsi waaye njabootam gi yàlla taxawu leen kon ba tey rek ñëwee ànd ak yéen seen documentaire jaar jaari Cheikh Mamadou Bassir ibnu sëriñ Touba Khadimu Rasoul بعد ماس سيخين الأحفاي مريد بجاغ لكي جوج ألواي برنا يا رير كمان كتوت كرقا دفل دونغ يوكل جوت كراكي جام لرسول الله عندك برم توبا بسم الله bisa ci biir la ñëpp yem Tuuba jàng naa ko nihmal abda yaay ayooba di fukki ban ak benn guddik altene la nu rañaan xabroga bis bay altene ku sikki zàkk di yaral taarix ba baylimaan jëreef ko sopp Bamba fi laylatil isnayni rabbuna xada yoon mu ne ko tasiral ne ko tasiral ne ko tasiral loolu moo des. ndax ndax ndax boo boo jàng siira doo war dara. Hmm? te sëñ bi sax ci xam-xam nga yëpp bu muy def siira bi maa dara bay na fulaan ba fulaan. waaw tur si yoon tur. dëgg la waaw bay na fulaan ba hmm, hmm. bu ko xam siira mbaa ñu nekkoon fi démb xam bay na fulaan ba fulaan nangam. ndax boo ba tey see see see daan ree dañ daan lii di oh, amoon na benn naar boo xam ne Algérie la jóge woon di def ay recherche dem na ci dem na ci ay dëkk yu baree bari ay réew yu bari dem na fa di def di gëstu ay ay ay xam-xam ñëw Touba ci sëñ Fallou sëñ Fallou ko yebal ci sëñ Bachir ba mu ñëwee wax ko aw yoonam ne ko sëñ fallu nag moo ma yebal ci ci yow sëñ Fallou da ko ne bis bu ne may naa la genn wàllu waxtu gannaaw bu ma julee takkusaan ba noppi wax kooku mujj na fi nekk ba jébbalu doonub taalibe yàgg fi loolu dégg wolof Algérie la jóge woon ba mu ñëwee bu bu toogee sëriñ bi gannaaw takkusaan fanweeri minit yi ba noppi foofee ko sëriñ bi bàyyi fa lay jullee timis moom naar bi moom nee na li mu gis ci sëriñ Basiiru du lu nit di jàng nee na moom jàpp na ne xañ na lu ñu def cib kaas naan ko la waaye du lu ñu dee si jàng ndax nee na ñi gën a bari xam-xam ci fi mu dem ñi gën a ëpp xam-xam ñetti fànn ñeent lañuy xam ñi ci gën a jàmbaare juróom waaye moom nee amul loo koy laaj ak lu mu mën a doon bu sa baat daanoo mu tontu te la mu lay tontu lay doon waaw kooku kon mën nga cee dégg ni wàllu économie ak yooyu yëpp dees ko doon wut si dañ ko doon tibb si ci moom. kon noonu ñu ko gisee sëriñ ba Bachirou li mu def ci wàllu xam-xam. Eh, te njabootam gi yëpp maasa taxaw ci la ko tàmbalee Cheikh Mamadou Moustapha ba ci Cheikh Mamadou Mountakha ak seeni rakk yëpp gis ngeen ne téeréem bu mag boobu rek doyoon na tegtal muy minanul baaxil xadim ci xam-xam bi nga xam ne sëñ Basiru utilisé na ko foofu eh, ñëpp xam ne ku ku liir téere bi rek da nga xam ne boroom xam-xam moo def téere bi waaye bëggum bëggoon xam-xam ak ñor gu ko xam-xam ñoroon gis ngeen fi mu toll tembe eh, fédération Minanul Baaxil Xadim yi nga xam ne ñoom ci xam-xam la yëngu ak di ci liggéey waaye yemu ci naal yi nga xam ne ba naaloon na ko bàyyi ko fi ca daarul minan bu leen fàtte ne bibliothèque sëñ Touba la woon am sëñ Touba bibliothèque la ko defoon nga xam ne moo nekkoon këru xam-xam gi nga xam ne sëñ Touba ay téere la fa daan denc fii nag moom këru bibliothèque la ko defoon moo tax Cheikh Mamadou Basir yitteem jëpp nekkoon ci dundalaat bibliothèque u sëñ Touba boobu waaye gis ngeen doomam ju tedd ji ngeen jàkkaarlool di sëriñ Mouhamadul Mountakha gis ngeen bibliothèque bi ñu fi naal téere mboolem fànni xam-xam yoo bëgg rek bo diké fofu dang ko fekk ci bibliothèque bi dundulat nak le serigne bassirou amone yene ak la nga xamanteni bi danako jaral muy dem murtani danako jaral muy dem muy muy muy jaxaso ak magni euh, fu fu ñu dégg ne borom xam-xam amna fa serigne bassirou talal na kooko loxo am ak mom relation ngir yittewoo gum wo xam-xam ak bëggum ko bëggoon waye yemutoon ci nak tam ko rek téeko waye ko daan xam ba nopi diko bind ngir bayiko fi waye diko xamé diko def ci nit ñi mu dana ci yi mbolem ku serigne bassirou tarbiya ngeen la mo ci image yi dañ na ak réer boo dégloo ay waxam da nga xam ne kii jàng na ba xam na farataam ak sunnaam soog a a wut ngërëmul yàlla ci Cheikh Mamadou Bassir kon yaakaar naa ne mbokk yi Cheikh Mamadou Bassir daal doon na koo xamante ne bii loolu rek li sëñ Tuubaa waxoon sëñ Tuubaa mas nañu wax ne bëggul lu dul yàlla ak yonente bi waaye Cheikh Mamadou Bassir mas na koo jug mu ànd ak mbégte ba mujj daa wut lu dox seen diggante ndax ne Mouhamadou Bassir la kuñ ne yaay baayam tamit dëgg sa xol war naa sedd te man bëggatuma dara seral sama xol lu weesu yàlla ak yonente bi kon yàlla na yàlla fayal

liggéey bi nga xam ne àndoon nañ ko ak yéen muy bu ñu doon def ci dund ak jaar-jaar yi Cheikh Mouhamadou Bachir moom Serigne Touba Khadim Rasoul ngeen jàkkaarloo ak doomam bi nga xamante ne bii moo sabab lu woon jotaay bi mu di Serigne Hamsatou Mbacké mu Cheikh Abdou ñu ñaan suñu borom guddal fanam lool te li ko kattan àggale yéenam ci liggéeyal lislaam defoon ko ci ndigalul magam bu baax lii di Serigne Mouhamadou Mountakha mbokk yi nag lii di lu tuuti loo xam ne jëlee nañ ko ci dund bu barkeel bu bari donc Cheikh Mamadou Bassir mi nga xam ne yaakaar naa ne topp ngeen ak ñun ci waxtaan yi nga xam ne mag ñu baax ñooñu def nañ ko fi ay waaye gis ngeen itam réalisation yi nga xam ne Cheikh Mamadou Bassir def nañ ko naal yi nga xam ne naal na bàyyi ko fi ci njabootam bu baax gi ko ko tàmbalee ci Cheikh Mamadou Moustapha jaar ci Serigne Mouhamadou Mountakha ak seeni rak yëpp def nañ ko fi loolu nag li muy tegtale rek mooy njàngalem Cheikhul Khadim boo ko bëggee mën a firi dëgg andi liggéeyu doomi Serigne Touba mooy firi njàngaleem Cheikhul Khadim kon yéenay Serigne Amsatou ak yéenay Serigne Mouhamadou Mountakha yal na ko suñu borom subhanahu wa nangu te kàttan leen ci bu ñu àggale ñu ngi leen di baax itam yéen ñi nga xam ne ñu ngi àndoon ak ñoom di ñu di jaajëfal bu baax itam sunu kilifa yi nga xam ne ñoom dañ dem nañ ci ñoom taatan ci ñoom kàddu yi lépp nag sëriñ bi ci lenn rek lu weesu wane liggéeyub sëriñ tubaa wane njabootu sëriñ tubaa gi wane seeni jaar-jaar ngir ndaw ñi nga xam ne xamatuñ fu ñuy teg seen i tànk ñu xam ne am nañ ay royukaay yoo xamante ni bii lii rek moo doon yoon wa fii rek la mag ñi jaaroon nii lañ defoon ba të àdduna nii lañ defoon ba të saytaane suñu bëggee të àdduna të saytaane itam fii rek la ñuy na ko mag mu baax ma waxe ndaw lu të raw ku bëgg a raw nag da ngay ci kanam koo xam ne bii suñu borom subhanahu wa rawal na ko kon noo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaan Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar suñu borom gën ko fa yàggal lool doole ak wéram ñaanal ko njabootu Serigne Touba gépp nag waaye ñaanal ko Serigne Amsatou mi nga xam ne moo sabab lu woon liggéey bi yàlla ko ci yàlla defal lu kawe njottal daraje yi mooy juróom yu baax yi doon liggéeyal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala